nga joxatiku rek jóge Espagne ñëw daan mbay guy gi daan aada faas tubéy te yaa leen mën a jur exemple bi ma lay jox rek mais ñun bu ñu nee Grand Yoff boobu yow tout tànk nga tàppet nga ragal nga moo tax Zarko du ma sonn ci ay waxam gaytaan ndékk mi muy wax sax gaytaan yi fii sama booy la moo tax Zarko du ma tarre ci moom xanaa coow la bëgg daa bëgg làmbam bu am coow bu dee da ngaa bëgg sa làmb bu am koy wax bu ko defee ma wax sa làmb mu am coow mais Gris Bordeaux laay wax man maa ne Gris Bordeaux Gris Bordeaux moom mooy ombre face Gris Bordeaux mooy nëbb Gris 2 mooy nëbb Serigne Ndiaye mooy nëbb ñeneen ak ñeneen te loolooy réalité bi tey xaalis bi ñu jël fay ko Gris Bordeaux tëggoon na combat wu ak keneen tëgg combat wu Gris 2 ak keneen loolu. bi looluy dëgg bi dañu waxoon ci dëgg lors dernier combat wu Gris Bordeaux on l'a payé des millions mu ñëw ci làmb ji kenn xamut lu mu def dañ leen waxoon dëgg ñu bàyyi suñu caaxaan yi quoi. léegi nag bu demee jël Zarko minimiser wu ma Zarko foofu non bii bu du loolu Zarko moo ñàkk am dégg-dégg man management wu écurie lay wax tey mënoon nañoo wax ne Zarko euh, Serigne Ndiaye tey mënoon nañu wax ne Zarko Gris 2 mën na nekk Zarko Lac Rose mën na nekk mais Zarko Gris Bordeaux maa ngi jégalu sama sama gaay Gris Bordeaux yoratul lu sonal kenn ci làmb nañ leen waxante dëgg tamit yoratul lu mën a sonal kenn ci làmb seen tàcc bi mu yoroon Ama Baldé dafa ñëw nëbb ko nañ waxante dëgg nañ bàyyi suñ caaxaan yi tamit réalité bi alburax su ma leen di foofu laa leen di meree. Gris day daw dépense mais dama ne leen biir Fass googu noonu bu dee mbooloo ngeen di wër ci Fass mënoon ngeen am Serigne Ndiaye takkusaan am ki nga xam ne nii moom mooy Gris de takkusaan loolu mooy affaire bi loolu la foofu fii la. ñaata million ngeen koy fay diviser leen ko en deux mën ngeen mën ngeen cee fay ñaari mbër ñu bëri ci même tàkkusaan bi da ngeen waxante dëgg muy ñeenti mbër yu sëgg loolooy réalité bi foofu alburax da ciy juum manque de calcul c'est pas une histoire de supporter da ngeen waxante dëgg du question supporter tey Zarko waroon nañ koo mën a jox tey Gris 2 Gris 2 il mérite de lutter avec Zarko Gris benn defet la am dañuy waxoon ci dëgg mais doo fekk gris deux gris un am onze victoire onze défaite nga jox ko Zarko mais Zarko loolu loo ci gagné dañuy waxoon ci dëgg nga daan nga daan nga giri gris deux ah gris la mën a yóbbu bu dee ñoom Balla Gaye nga bëgg a bëree mën ngaa bëree ñoom sans daan gris loolu du problème bi te ñun amuñu lu ñu iñaanee waa waa Grand ah. donc kon ma koy waxaat rek amuñu luñ mën a iñaanee waa Grand Yoff lu tax mënuñu leen iñaanee mooy tey bu fekkee ne fierté la ñuy wax ak yooyu noonu ah Zarko bu fàtt na da ngaa sàqi woon dem dem Espagne ah. da ngaa sàqi dem Espagne peut-être nag xam naa ne ñàkk jàng def lu bëri ci doomi adama yi mais fii nit ku nekk da am perception ak vision man waa Grand Yoff joxuñu ma dépense Sénégal rek la bi xam nga yow yow Grand Yoff nga wax man Sénégal complet Sénégal joxuñu ma dépense man sama dépense sama kër ci sama ñàkk bi laa koy amee est-ce que yaa wax kon du question wu Grand Yoff beeg Sénégal géeg yooyu du foofu affaire day laaj un peu plus loin Zarko am nga mérite bu bëree cour des grands am mérite bi wallahi walazim kenn bañu lulu ko mais ñun fi ñuy waxee mooy ci niveau gris un mi nga xam ni il ne prouve rien du tout Gris Bordeaux prouvé wul rien du tout Zarko ñun foofu la ñuy waxee quoi am boo yoo xam ne ni ñu ngi ci buntu ñëw doon troisième tigre de Fass Gris Gris Bordeaux di ko xañ loolu lay wax ji foofu la ñuy waxee quoi ñun bu ñuy wax foofu la ñuy waxee waxuñu ne non Zarko warut a bëreeg non on s'en bat les couilles Zarko on s'en bat les ndax da nga war a bëreeg diw ak diw lijjanti wuñ loolu mais bu dee yi nga bëgg da nga am bruit t'inquiète Bakary nga fi am fii man du ma delloo avance yow xam nga loolu Grand Yoff gi ngay wax gënoo ma koo dëkk gënoo ma doon booy Grand Yoff kon li nga yëngal nii xoola gars yi lay jommal mais pas man man yooyu jommalu ma de booy Zarko ndànk rek yooyu man jommalu ma barke Serigne Touba yow xam nga loolu sax gënoo maa dekkee sa gënoo kon yow xam nga loolu kon ndànk rek bin bin dalal dal rek dal kese moo lu ci mën a génn amul leneen ngay wax mais nag sama waay ne Zarko <laughs> Zarko c'est que Zarko suñu borom dafa def mu boole ñoo ko ay xarit yoo xam ne ñoo ko ñoo ñoo ko bokk ñoo bokk ay xarit mais bu ko neexee nag am na droit wu génn attaqué coach Bakary bu ko ci kenn mere Zarko am na droit wu attaqué ma comme nu mu ko neexee parce que man damay taxaw wax li ma xalaat moom mu taxaw wax li kalaat xalaat par respect léegi nag bu ñu demee nag man ak moom kese ba Zarko dafa lay ñuus man maa yow kese dafa lay duma ba nga tëdd loolu lay wax di ngay bandi bandi lu sama kaw. léegi bu lu jàllee damay ñëwaat <laughs> waa jaay Zarko seet Zarko kese <laughs> waaw il mérite Zarko kese mérite na wax dëgg yàlla nga jógee Espagne ñëw tamit def différence am na solo. wax dëgg yàlla ah, il mérite c'est un sportif benn ñaar moo am nag gëm-gëm am benn puissance boo xam ne nii mi koy ci làmb dëgg am na mérite bëre ak ki nga xam ne nii mooy Gris Bordeaux mais valeur nekku fa mérite ak valeur dafa différent tey mën naa la wax ne la Zarko bu daan Gris Bordeaux di Gris Bordeaux ça fait onze ans prouvé maa ngi jégul